mbokk internet yu seneweb point com yéen ñi ni teewlu seneweb tv ak seneweb rajo amati neen euh, mbégte di janoog yéen tey jii comme ni nga koy faral di defee euh, dañuy dalal koo xam ne nii du gulit suñu koy dalal waaye saa su ko dalalee aussi day am ay ñaakat yu bëri yoo xam te nii euh, da nga ko si jël muy professeur Cheikh Omar Diagne ñu amati mbégte dalal la fii nii si seneweb di bàyyi nga nuyoog ñi ni seetaan. waaw ah, ah, sànq bu tedd maa ngi lay delloo ziar di la nuyu. di kontaan ci teew fii ci dellu si fii di nuyu waa kër gi yëpp waa Seneweb di nuyu mbokk internet ñu setaan ci biir réew mi ci mu réew di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix ba lépp lu fi waxtaanee rek mu nekk yiwu nekk njariñ euh, incha allah rabbi amin euh, professeur mm. euh, professeur da gis nga yëngu si ay combat yu bari mm. aar daara yi sàmm jikko yi mm. ak yeneen yu ni mel te yow bu ñuy xool euh, yow financier nga euh, si si si sa wàllum formation si loolu nga spécialisé wu si ngay gëstu si ngay jàngale. Mhm. lan moo indi digression boobu. Mhm. si nga nii si wàllum finance mooy spécialité am ba mhm. sax tàbbi si aar jikko yeeg yeneen combat yoo xamante ni c'est pour des valeurs sociales yu ñu war a sàmm. Euh, macha allah c'est vrai que am na solo trop man dama gis ne bien avant may nekk un économiste wala un financier de par sama cursus scolaire et académique. Euh, avant tout je suis un musulman jullit laa avant tout tamit je suis bu dëkk Sénégal ba pare yëg ni wàccee ma yàlla wàccee Sénégal du par hasard am na rôle ñu fi war am na mission yu ñu teg suñu suñu ndox yi suñu la si génn ko layoog moom donc man sama bopp produit daar laa dama jaar daara donc euh, dans mes combats nag sama combat yëpp soo ko seetloo combat bi tourné autour de benn donateur commun la am mooy l'islam donc man je suis Hmm. Euh, chaque fois su ko waxee si ay chaîne tubaab dañuy tiit ñoom parce que le mot islamiste dafa dem ba am benn. ñoom connotation bu négative. bu très négative et je le fais exprès nag pour di ko affirmer et di ko di ko incarner je suis islamiste dama dama dama bokk ci doctrine islam dama gëm l'enseignement de l'islam dama adhérer à la philosophie de l'islam c'est ça islamiste. Hmm. donc man islamiste la islam boobu nag moo ma digal. ma taxawu sama askan. islam boobu moom ma digal ma xeex lépp li xam ne dafay yàq diine. dafay yàq jëkk bu rafet ndax nag bu ñu fàtte ni dafa am ñetti mbir yoo xam ne moo résumé di nga wax si aar daara yeeg sàmm jikko yeeg yëpp. incha dafa wax si hadis ne euh, innama bu'istu li utammima makaarim al axlaaq nee na man dëgg-dëgg yàlla dafa ma yónni pour une seule raison pour ma mottali jikko yu rafet yi. Mm-hmm. kon sàmm jikko yi wax dëgg yàlla moo nekkoon la mission de tous les prophètes te mooy mission ñëpp ñu baax. Mm-hmm. incha allah dellu waxaat encore euh, ci wàllu jàng. ak jàngale euh, mu wax ne euh, doomu aadama bu nekk dafa am wareef utlubul ilmi mu ne walaw bi Chine util xam-xam même bu dee da ngay dem ba Chine donc xeex ci wàllu xam-xam te dañoo gëm ni mboolee mi xam-xam yi ñu si alxuraan ndax moom mooy moom mooy le creuset Euh, et le confluent euh, tous les savoirs et les sciences donc wax dëgg yàlla aar daara yi aar jikko yi euh, xeex ci ñëpp ñi nga xam ne ñooy jàmmarloog diine mooy waa nouvel ordre mondial franc-maçon yi homosexuels yi mhm. saay-saay yi man dama jàpp li yëpp c'est un seul combat c'est le combat de l'islam si combat am na tamit benn prix parce que boo xeex benn xeex yenn saa yi dina am ay coups yoo xam te ni da nga koy recevoir mhm. mën na nekk ay menaces mën na mhm. nekk ay pression mën na nekk tam yeneen xeetu pexe yoo te ni dinañ ko lal aussi pour mu nekk ay ndëgg sërëx gàkkal li ngay def gàkkal sa xar kanam wala boog euh, peeñ bi nga xam ne moom ngay wane sa image. Mhm. loolu tamit tam nan koy appréhender ak tamit ndax am na loo si mën a dund mën a partager ak ñun. waaw euh, loolu mënul ñàkk dafa xam ñenn ñi xam ne say xarit ñoom ñu mel ni euh, ñuy wooyee ba góor jigéen ñi wala ñuy wooyee franc-maçon yi booy xarit ñoom à visage découvert ñu bëri sax dañoo dem ba mujj leen ragal ñeme ñu xeex ak ñoom maa ngi fàttaliku ñun en 2018 waa Grand Orient de France bind nañu lettre officielle. adressé ko Sénégal di ñu menacé ñun collectif bi nga xam dañoo tere woon. benn hmm. benn tënk benn ndaje bu ñu waroon wax des référendums fii au Sénégal. Hmm. donc il devait le faire au King Fahd Palace. Hmm. donc ñu activé wu xeex leen ba xamal leen ni suñu bàqa lañ ci teg bu ñu ko doon def fii doon ay ay néew na fi am ñu mujjee ko yóbbu ko Congo bu ñu defee ba pare ñoom dañoo bind mettitlu ñaawlu ba pare menacé ñu. donc man ak Ababacar Mbuub ak ñëpp nga xam ne waa collectif euh, non à l'homosexualité à la franc-maçonnerie ñoom Abdou Karim Gueye ñoom Adama Mbuub ñun ñëpp ñoo bokkoon ci xeex boobu. donc su organisation bu toll noonu nga xam ne boole na lu ëpp 1600 loges dans le monde ñu wax le Grand Orient de France am ay représentants fi au Sénégal yaa quatre loges fii au Sénégal yoo xam ne ñëpp ils sont affiliés aux Algériens de France kon c' est très normal et compréhensible que les représentants de ces suppôts du diable la yi nekk fële ci dëkk tubaab bi euh, nañ jéem a xool ñu yëngatoo te par les moyens qu' ils ont pour mën la laal ñoom nag dañoo am ñetti stratégie yi xam ne la ñuy laalee doomu aadama bi si jiitu mooy jéem a xool nu ñu la mën a nu ñu mën a yàqee sa der sa image à travers yenn média yi à travers euh, ñenn nit yi nga xam ne ñoom dañ leen di fay pour ñu yàq sa image maanaam discrédité la euh, sosal la tuumaal la ŋàññ la ba xam ne doo ñeme taxaw wax pour nga dem làqatu ci loolu vraiment kenn ku jógee daara ku mel ni man ils peuvent pas le man loolu jaaxaluma donc xeex bu ñuy xeex dañ ko peser bu baax comprendre ko xam li ñu si mën a fekkee ba pare ñu taxaw euh, pare pour encaisser ko euh, su ñu defee loolu mënul nekk nañ jéem a xool la jéem a chantage corrompre la pour jéem la jox dara jéem la jaar fenn pour noppi loola même pas sax pour nga ànd ak ñoom mais pour nga noppi. donc loolu tamit xam nañ ni euh, képp ku ñu gis ni kii il n'est pas très accessible du ñu essayer carte boobu ak yow ndax il se à découvert maanaam a fay wala ñu jéem la jox dara troisième bu ñu am ñoom mooy jëm la éliminer rey la soo dafay fekk ñu nekk si benn niveau de dangerosité bi nga xam ne vraiment daf leen ëpp loxo rey leen kese moo leen di mooy leen di dimbali jàpp naa ne ñett yi yëpp wax dëgg yàlla nous sommes pas biir gaal googu donc euh, ñoom nag ñu ngi activé wu man damay gis des fois ñenn ñi nga xam ne dañ leen di manipuler instrumentaliser leen. di ñëw di la saagaak di la xasak di la ak seen faux compte yu bëri ñu am yi nga xam ne dañuy ñëw di dugg di saaga ay ndey ak vraiment yëpp on l'a compris. mis nañ ko wax dëgg yàlla euh, ndax kuy waxal yàlla euh, noonu yàlla kese moo lay bañ. man dañuy egg niveau bi xam ne sooy wax te waxoo sa coobare bopp ndax man li may wax ak sama yeneen morom yu bëri nekk si dëkk bi di xeexal dëkk bi lu ñuy wax waxuñu pour suñu intérêt ñun waxuñu pour suñu askan waxuñu pour suñu famille wax dëgg yàlla waxuñu tamit laaj dërëm di ñuy wax yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñuy wax donc képp ku ñëw ŋàñña loolu rek c'est parce que noonu yàlla noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc man rek laa ko jàppee hmm. ñeenti loge maçonnique moo nekk hmm. fii nii si Sénégal hmm. euh, yan la ak fan la ñu nekk ndax mën neen xam euh, bu nekkee bii Dakar la fii la leen mën a fekk wala fekk <laughs> waaw waaw non du ñeent kese rek Dakar Sénégal maanaam ñeent loge ñoo affilié Grand Orient de France dafa am ay obédience dans la obédience su nekk Grand Orient ñoom fi am fi ay loge am tamit yeneen obédience yi xam ne dañoo bokk ñoom si la grande loge nationale française ñoom tamit am fi ay loge kon en tout bu leen boolee ñaata lay nekk. fii au Sénégal y a une quinzaine de loges en général pour tout le Sénégal. Mhm. une quinzaine moins de vingt daal yoo xam ne ñoom tous les maçons fa la ñu bokk ñu ñooy les loges yi xam qui sont vraiment euh, régulières yu am ay séances am ay tenues euh, ay maçons nekk fa affiliés euh, voilà ñu bëri si dëkk bi nga xam ne am si yoo xam ne nañ leen te moo tax xam des fois yi <laughs> dañ jéem la wax loo donc mais nag je dis Euh, ils sont là ils se cachent pas peut-être mën naa benn loge bi nga xam ne loge boobu presque moo fi njëkk moom mu ngi fay wetu assemblée euh, mooy loge étoile occidentale Dakar moom la ñu taal euh, en novembre mu ravivé ko mu dugg en décret mu dugg en en activité le 4 avril moom moo waral feetu indépendance Sénégal yi koy def 4 avril ndax Sénégal amul woon indépendance 4 avril. Mm-hmm. l' indépendance Sénégal c' est mu ngi amoon en août c' est le 20 août 1960 donc euh, Mali dem jël ko en septembre 17 septembre donc fédération du Mali la ñu woon y' a jamais eu euh, le 4 avril musul am li nga xam ne dafa am indépendance Sénégal y' a eu nag une signature d' un accord de transfert euh, de compétences yi nga xam ne entre la République française ak la fédération du Mali nga xam defoon nañu ko le 4 avril mais ñun nous sommes pas la fédération du Mali donc 4 avril c' est un honneur bu ñu jukkal. le Grand Orient de France fii au Sénégal avec l'État occidental Dakar yoo xam mooy première loge bu ñu andi Dakar ndax avant moom toutes les loges étaient à Saint-Louis ñoom nag ñu andi seen loge Dakar ba pare tuxalaale sax capital bi jëlee ko Saint-Louis andi ko donc parce que les fonctionnaires de l' administration ñu si bëri ay franc-maçon la ñu woon Saint-Louis ñëw ba Dakar réunir ñibbiwaat donc loge boobu mu ngi fee assemblée ginnaaw assemblée je suis pas le premier sax à en parler maa sax El Hadj Abdoul Aziz Dabakh yàlla na yàlla yokk ko leer moo njëkk taxaw sax di wax ci loge boobu ak Euh, Ndakaaru am na kun si tudd koo xam ne nii dan koo weg bu baax baax bu ma tudd turam parce que nekkatu fi mhm. donc loolu moom dafa xamutoon wala ndax dafa amoon yeneen mbir yu nekk si ginnaaw yoo xam ne dafa wuuteeg la thèse officielle non euh, je pense que Mamadou Dia ngay wax waaw Mamadou Dia il a transféré la capitale de de Saint-Louis mhm. euh, à Dakar c'est la mhm. capitale du Sénégal mon capital Sénégal la transféré c' était en 1958. 1958 1959 c' est que moom euh, li mu def noonu c' était un euh, un coup politique d' une portée extraordinaire. Mhm. Maodo Dia muxaddam bu mag la woon Serigne Tidiane muxaddamu sëñ Abbas Sall la. Mhm. un homme éminemment religieux. un homme pratiquant un homme bu sell bi xam ne il n' est pas de loin ni de proche lié à la maçonnerie. Mhm. n' est ce pas mais moom li mu def noonu c' est y' a une communauté lébu qui était ici au Sénégal à Dakar. di nekkoon di marchander pour am indépendance génn Sénégal lii moo andi wax bi dañoo bëggoon jël dakaar def ko benn dëkk génn Sénégal mu xam li ñu bëgg def xam seen pour pourparlers yi nekkoon di doxal avec la France mu transférer la capitale du Sénégal euh, de Saint-Louis euh, à à Dakar mais avant loolu la capitale de l'AOF L'AOF, sa capitale était Saint-Louis. Saint on l'a transféré en 1902, puis à Dakar. Ah, d'accord. Donc, bon, ça, ça touchait pas à Mamoudou D'accord. Donc, précision, vous, amna solo. Amna